salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi tey danoo yeewu Touba ñu indil Serigne Mountakha ay gaynde jox ko ko addiya mais gaynde yi dama bëgg a leeral ne du addiya waa ji dafa indi woon gaynde yi ah pour ñu ñaanal ko ba mu leen ñaanalee yaa ngi fa fanaanun daaru bi ndam danoo toppaat gaynde yi seen borom da ko yóbbuwaat mais man li ma jaaxal mooy sëñ Mountakha lu muy doyee ay gaynde lan lay doyee ay gaynde sëñ Mountakha ku koy jox addiya mën nga ko jox ay xar sàmm image am parce que sëriñ Muntaxa lu dana sëñ Muntaxa ngay indi lu muy doyee ay gaynde lan lay doyee ay gaynde sëñ Muntaxa leen mën a jox nit lépp ci lu baax nekk fi nga tànn ci ay gaynde di ko yóbbu lu muy doyee ay gaynde ana lan la koy doyee wala yéen bës ngeen bëgg bëgg ku leen tiitare di bi di naan sëñ Muntaxa gaynde yi gaynde yi bu ko defee ñu naan ki joxe woon gaynde yaa ngi nii tey sama waa ji jàmbaaru sëriñ Tuubaa gi li nga indi woon ci ay gaynde yaa njëkk dugal gaynde Tuubaa lu muy doyee ay gaynde doyee ay gaynde sëñ mu taxaa ñu jege sëñ bi nag il faut ñu jéem a yeewu tuuti jée am jéem am état d'esprit ay gaynde moom sëñ bi wutul dara tuubaa wasalaam lii métti na ma torop barke Serigne Babacar man damaa xamul ban ñàkk fayda la leen sëñ mun taxaa wan ah ak ban ak ñu koy déplacé woo Touba dara ay gaynde lii ak jabaate la ku jàpp ne nag sama kàddu yii ma yëkkati nekkul kàddu yu teggalu maa ngi jéggalu mais man lii dëgg moom laay wax dama ne lii ak jabaate la sëñ bi ban kanamu ñàkk fayda la leen wan ba ngeen koy dépla déplacé woo ci mag ak di ko yëkkati ci ay gaynde liñ war a jox nit ñi ñëpp nekk fi ngi ni bu ngeen bàyyee ñu jox ko gaynde bu ëllëgee golo lañ ko indil parce que nit ñi ñoo mel noonu nii leen fi defoon jox jox jox sëñ Muntaxa tàndar ma xumal di ko filmer seen yëfu ñàkk fayda yi ak seen yëfu jaaxaan yi ngeen war a génnee sëriñ bi génnee leen ko sëriñ bi mag la

fàttali Eumeu Sène ñëw na ànd ak Safa Goal Eumeu Sène ñëw na ànd ak staff bi ànd ak seen ànd Eumeu Sène ñëw na ànd ak waa Pikine vous plaît. Ambassade